Ah! bikum juróom-ñaar téeméeri milliard ci suñu xaalis moo nekk ci gafaka bu réewum Sénégal kon képp ku taxaw naan réew mi xamut xaalis gafaka nguur gi fa rànq wala amu benn dërëm képp ku ko wax fa ngay wax lu la neex wala ngay wax waxu ko ci saret du samay kàddu nag jëwriñ ji ñu dénk koom-koomu réew mi ak koppar yi Amadou Ba moo ko wax enquête yéen a kaay yeggee ko ba pare yéen a kaay bi yokk ci ne Amadou Ba wax na sax tolluwaay koom-koomu réewum Sénégal a yow seetal ñaari juróom-ñeent fukk ak ñeent moom la ñu dajale ci ay koppar ci réew mi ci at ñu nekk waaye daaw junne la woon ak juróom benn téeméer ak juróom benn fukk ñeent ngeen dégg ci ne li ñu am ren ci xaalis moo ëpp fuuf daaw wàllu impôt yi xam nga ñaata nguur gi am ren juróom-ñetti téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ci ay milliards moo ëpp tamit daaw ndax daaw impôt yi fisc bi juróom-ñetti téeméer la woon ak ñaar fukk ak juróomi milliards ñu ne déete waaye jëwriñ ji nee na du na fa ngay am ba tax ci l'observateur Amadou Ba nee na jafe-jafe koppar Sénégal bu ko fi kenn tudd amut fi gafaka gaa ngi fees dell ak milliards juróom ñaar téeméer te entreprise fay nañu leen juróom benn téeméer ak juróom fukk ñaari milliards ñun ni ñuy doxalee wàllu koppar mooy def ndànk loolu nag moom la ñenn ñi xam dégg ko rek na matt ka damm na Sénégal amul xaalis ak dugg na fi dugg na faa ba tax Dakar Times ne xibaar yu dëggu yi nag ci kopparu réew mi jëwriñ ji di Amadou Ba wax na waaye Mamadou Lamine Loum mi am na xaalis loolu na ci la Sénégal ñaar téeméer milliards ak ma nga fa ca vox populi jëwriñ ja ma ngi fay leeral kopparu réew mi li fay entreprise ak li am ci koppar les éco yéen a kaay na ko waxal wax ji bu jëwriñ ji Amadou Ba dafa weddi képp ku taxaw wax na Sénégal dafa am jafe-jafe xaalis le soleil yéen dëggal ko na juróomi téeméer ak fanweeri milliards desal nañ ko ci ay milliards maanaam dañoo am ba desal ku weddi demal trésor public le quotidien yéene kaay na leen Mamadou Lamine Loum d'accordu ci loolu ngeen wax nee na réew mi amut xaalis jëwriñ ji di Ba weddi ko li kenn mënta weddi nag mooy askanu Ndakaaru xam fa ndox moo gën a jafe xam fa doom bu góor aa yow seet juróomi weer a ngi nii ndakaaru rawatina Parcelles Assainies askan wi ñoo am ndox nekk ci ay jafe-jafe wal fajar yéen kaay ñu ko xamal ñeneen ñu nekk ci jafe-jafe mooy askanu Sénégal yëpp rawatina ñuy tabax ndax fi toll nii ciment bi jaaykat dañ cee yokkoon cinq mille ci une bu ne léegi na nguurug Sénégal dàq na ko dindi na cinq bi jaaykatu ciment bu yokkoon fi toll nii dangaay wàññi waaye loolu nag jur na coow ndax defarkatu ciment yi na ngeen taxi jafe-jafe bu am ci diggante ñiy yónnee orange money wala di jot xaalis ci orange money aa ah, yaaw seetal waa orange fa ñoo wàññi seen commission ya bu ñu yónnee woon wala ñu jot lañ cay am moom la wàññi gaañu nag ne du dëgg du yoon ba tax ñuy ñaxtu ne orange fa leen a bëgg a rey ki mel ni ku rey boppam mooy njiital kudd université bu Ndakaaru ndakaaru Cheikh Omar Anne tooxi doona ay kaddu yu doy waar moom la yëkkati ci kanam ay kilifa diina yu nekk Podor ba tax direct info ne Cheikh Omar Anne mi ngi ci yoonu dàq dañ koo nar a kajji ca université bu ndakaaru nay leer laneen lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy ne réewum Croatie moo jàpp réewum Sénégal ci wàllu bal jogante xaritoo démb di ko mbukki di ko mbukki di ko mbukki di ko mbukki ba muy bëgg a dee ñaari bal ci benn Sénégal moo njëkk a lakk caax ya Ismaïla Sarr ci bii lakkaat suñu jaax yi a kaay ne li am démb avertissement la artu buñ soppi doxalin gis ngeen coupe du monde bi danañ rey Sénégal de nooy neex lañ fa dara nekkee ku mbukk jox sa morom ma mbukk ñu ba tax Kalidou Koulibaly ne lii nag lu jaadu la ngir askan wi Aliou Cissé ma leen di entraîné ne man pourtant jaxle wu ma ndax jongante bi gaynde yi football nen doxal nañ bal bi li ma ci naqari daal mooy mbuqi yi ñu mbuqi résultat bi waaye suñu jogante bi moo gën foofu yi ñu doon def record yi a kaay ñu ko xamal li mu ñu xamal moom enquête yi a kaay mooy gaynde yi daal bu ñu waxante dëgg lii ñu wane moom dalut xel ay match ni rek ñu ne diite waaye nga yokk ci defet ñi nara am defet nag boo mooy tuut mooy waa TFM yi wane jongante coupe du monde yi démb wane nañ amical japon bi ndax fi mu toll ni waa sénéra kuréel gi saytu doxalinu télé yeeg rajo yi ci sénégal génn nañ ba taxal ñu ngi artu ak a tëkk mboolem télévision fii biir sénégal Sénégal bu wane match coupe du monde yi danañ dal ci sa kaw ay daam alamaan la xaalis boo moytu sax danañ tëj télé ba ndax kenn amul ci droit lu RTS ngir wane jongante yi si du quotidien moo ñu ko xamal waa TFM yi groupe ba GFM ne doonte tudduñ sama tur ñii dafa mel ni man la ñuy gaaruwaale ndax fii man rek maa fi wane match yi amical yi léegi nag dama leen tontu gis nga coupe du monde bii di ñëw jongante yépp danañ ko wane TFM far force fra force doole wane ko mi ngi ci l'observateur mu mel ni kon diggante TFM RTS ca yoon lañ nar a mujj ndax tàmbali nañoo xiiroog ngaayoo da nga wane du ma wane amoo ci droit am naa ci droit dañ laa jaay jaay ma li ci kanam nag raw gët léegi ñu xam ko am dëgg ci ñoom ñaar ñaar ñi war a bëree Modou Lo Balla Gaye 2 Malick Thiandoum ci sunu lamb ma ngay art Balla Gaye 2 na ko defal ndànk nag su fekkee dëgg rek la ñuy wax yow taxawoo cent pour cent déedéet des na te Modou Lo fi mu toll nii moo ci nekk fa taxaw boo mooy tuut ba maanaam dana la mbuqi